Okay, I'm going. मुझे Tu as fait un voyage va? bien Bon, on est va? Ça va Non. président de la Fédération.

Thank you. la plata.

Moussa murit ba woon na leen ndaw ak mag ak góor ak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 te kon bilaay ñépp dem niiraanu moo tax ku màggali bisu tukkee mbaa